oh Moustapha Gueye de Abou Ndiassé dina la doole feeñ na. Abou Ndiassé defal ki ngay dajal daa mën a bëre. Abou Ndiassé war na xeex. yaa féete ndaw may defal ndànk. mu ngi diree ku ñëw. waaye Moustapha Gueye de màggatum bërekat. ndaanaan li ma naan kattan ngeen fi ñëwal waaye xel bëri ngi fi Tafa Gueye 2 Abou ci tànk yi la jëm. tey gone gi dafa bëri doole. décembre. combat bu parax parax la bëgg door na ko léegi encore. dafa bëgg a sax saxee. dafa bëgg a booy bi jóg énervé. daa bëgg booy bi màmm waaye booy bi jigéen ñi yab nañ ko ci yab nañ ko xam nañ Tapha Gueye muy bëree. Tapha Gueye de loolooy fooram. du la may dara te boo juumee mu daan la. waaw waaw Moustapha Gueye 2 ah, Abou Ndiassane la ko taxawal Moustapha Gueye 2 ngi wax moom. day bëri di wax ak yow. ndaanaan la. day bëri di wax ak yow. doonaat na ko away tusaat na ko. situation Moustapha Gueye 2 mi xeex xeex bu jaar yoon nag. Abou Ndiassane li gën a bëri topp. Abou Ndiassane Moustapha Gueye numéro 2 sànni na léegi gàllaaj bi. sëriñ ba am lay. waaw boobu sëriñ mucc na boobu moom mucc na yaa ngi sama lay wax. ah oui Moustapha Gueye 2 bett na ma ndax bëri na. waaw waaw waaw ah, xel maa ngi fi doole jëf fi néew laa fi. waaye touché na ko léegi. waaw dugal na ci bi léegi dool ko ñaari coup yi daal moo tax tam Abou Ndiassé war a def ndànk. Abou Ndiassé Moustapha abu Ndiassé nee na ko taxawal ñu bëree Abou Ndiassé Moustapha Gueye numéro 2 xale ak mag arbi nee na ko taxawal bëree Moustapha Gueye numéro Abou Ndiaye sa Tapha Gueye numéro 2 waaw waaw waaw nag yàgg am ay bis. yàgg nañoo ci lamb. sama xel ci nees. waaw loolu am na bis la woon bu fi jaaroon. tey Fass Lamsar. danoo yàgg ñoom ñaar. waaw Abou Ndiassé Abou Ndiassé bu ko Tapha Gueye daane fu mu jëm. ah man de nettaliwu ma ko loolu waaye xam naa ni du nekk lu koy ci lamb. ndax Tapha Gueye ci buntu sotti lamb. waaw waaw Abou ci buntu dugg ci lamb. kon li ma naan tey grand la. tey ji la tàmbali. tey la tàmbali. buñ paree daal liñ ko woon Ama Balde. ay li ñu ko laaj toj na réew mi mooy gâteau bi. na lu rëy. ak ci lamb xam ne ñëw na. la ilaha illallah dañuy ab. ni mu defoon lay defaat. defoon lay defaat Tapha Gueye lay bëree. Abou Ndiassé Tapha Gueye du bàyyi li mu doon def. yéen ko jëm da ngay fecc da ngay da ngay fecc da ngay fecc da ngay fecc da ngay numéro da ngay fecc. mais Tapha Gueye day ji ne. da ngay fecc. waaye gone lay bëral. ah eh, waay. Eh. Balla Gaye 2 mi eh ouais du taxaw du ko nangu Abou Ndiassé mi ngi jëlee ko di ko topp Balla Gaye 2 mi ngi koy wër Tafa Gueye 2 mi ngi war Abou Ndiassé. est-ce que Abou Ndiassé warut a forcer Tafa Gueye 2. waaw loolu mooy jeexal làmb ji. loolu mooy jeexal làmb ji. nanguwul taxaw. non du taxaw nii lay bëree. est-ce que du ko forcer. Tafa Gueye ñi ma dégg ko xam nii lay bëree du taxaw. xool ko xoolal fi mu jëm. da lay jaxase waaw Tafa Gueye 2 li muy def nii. waaw Tafa Gueye li muy def nii. nee na day rendi. nee na day rendi. nee na day rendi. man. ma ngay njuub. da ngay jóg amoon koy dàq muy daw. amul pression. da ngay lu mu prouvé ci làmb. déedéet da ngay jóg da ngay jóg tey lay jaay lay bàtti na record bi de tabaat dina day rendi. muy sama nay et eh, grand job grand job na mu naa la. <laughs> boy bi mer na filmel filmel mu ngi énervé wu troisième avertissement

waa mais père damaa ngi dem bi jinne la. jinne la kay ah, lay def booy bi ba ko daan ko nag su ma doon booy bi dama koy yomb ba gisoo. booy bi est-ce que war mu jeex. ay ah, waaw mu jeex mooy xale. gis daf ko war a mu jeex. Ah, mais bu ko forcer damaa ne ko juma daal de wóor na yàlla booy bi day ñëw booy bi day ñëw mu ngi wax ak moom mu ngi wax ak moom mu ngi wax ak moom Tapha Gueye de Abou na gàllaaji Abou Ndiassé daf ko bëgg a daan ko eh boobu Tapha Gueye lan lay def nii. fecc na ba wëndeelu. fecc na ba wëndeelu. il n'a rien à perdre. ah daanaka biñ ci génn ji amul lu jub Tapha Gueye dina di perdre. Eh, déedéet daanaka génn lamb la gën a jege. arbitre sifflé waat na. Tapha Gueye dee daal fecc na ba wëndeelu. xoolal public bi li ñuy wax ak kër Abou Ndiassé yi xoolal waa kër Abou Ndiassé yi xoolal waa kër Abou Ndiassé yi xoolal SRL jël naa suñu bëri SRL jël naa suñu bëri xoolal Maxime Bergan fële xoolal Maxime Bergan Maxime Bergan a ngi wax fee mais Moustapha Gueye jinne xoolal Moustapha Gueye de xoolal Moustapha Gueye de fële Gris Bordeaux ngi wax ak moom. Gris Bordeaux mi ngi wax ak Tapha Gueye numéro 2. cey Tapha Gueye numéro 2. fecc bay bëri damaa di bëri di fecc maa koy gis. léegi léegi lan la. Gris Bordeaux gis ni. am am am am am tournel wëndeelu ci man ci man ci man ci man may ma non

Tapha Gueye 2 Abou Ndiassé quatrième amee cinq mu jeex. non dama ne du taxaw waaye bëgguma Abou Ndiassé lamb ji jeexee ci avertissement ndaw la. waaye Moustapha Gueye 2 changé wul. li muy def. du ko changé ndax loolu mooy avantage <laughs> waaye grand Diop la naa la waaw oh, grand Diop Abou Ndiassé mi Moustapha Gueye day jine quatre la quatre quatre quatre avertissement pour Moustapha Gueye bu ñu sifflé waatee mu jeex Moustapha Gueye du taxaw Abou Ndiassé na forcé Moustapha Gueye dooraat na Abou da war a forcer arbitre ngi ñëw bu ñëwaatee day jeex jeex na jeex na lamb ji jeex na lamb ji jeex na Maxime Mbergane nee na lamb ji jeex na. bëri ko Aliou du bëri moo tax Abou Niasse forcé ko. ah seetaanoo tamit nag yaa ngi seetaan mais la nii la mun a demee Tapha Gueye. combat bi ni mu jeexee. léegi waaw vraiment nag c'est pas honorable parce que Tapha ak expérience am waroon na mën a gën a bëri lu lu gën rafet lii ko vraiment donc c'est c'est désolant mais lool loolu la quoi. ci appaa la na bàyyi la fal ndey lamb kii bu ñëw dégg saaga bi baaxul saaga baaxu ci mais kii dafa lekk dafa ndee fas noonu gis nga àdduna solo daal moo ci nekkee mais ñoom bëggul yomb rek ma ma ma sa situation du ma ñëw saa xeex booy ndey xam ne xam ne bëri di ma daan victoire bi abandon na ko mais góor moom ni mu toll nii ko li ma daw daw waroon a fekk foofu jàpp ma. mais nga am défaite ba pare dagg sax est-ce que dina yomb est-ce que dina. ko daggee liñ jël suñu borom aari xoolal Sadio Mané ngi fi day ñëw. barka rasul Sadio Mané day ñëw li moo ko lee man tey du ma laal suuf. waaw waaw barki Serigne Bamba may sa. conseil fii bi ay bañ mu longolo fii bi ay bañ mu longolo. waaw